d' accord parce que loolu déjà moom la ñu naan soit travail à charge wala article à charge ne yow c' la chasse à quelqu'un daal pour moi comme tu le dis le journaliste d' investigation il mène comme une mission d' intérêt public c' est comme le fonctionnaire de l'État quoi sauf que lui il est journaliste léegi ton travail mooy le choix déjà du sujet da nga war a xool sujet bi tey déjà est ce que ça intéresse les gens su ma ko publier su amee impact est-ce que dina changer la vie des gens pas forcément la la la vie privée de quelqu'un tel artiste a un caleçon troué ces ces sujets là franchement c'est pas important comme li nga wax du nekk forcément loo xam ne dañuy acharné aussi benn mm-hmm. nit n'empêche tey mën nañ gis un sujet qui est intéressant boo xam ne ça implique une personne en en particulier mm -hmm. mais du doon loo xam ne si ni kooku rek ngay liggéey ça pour moi c'est autre chose que du journal donc le choix du sujet c'est important des fois yow rek sa avis du la doy mën naa solliciter un Pape Malick boo xam ne c'est un collègue wax ko booy lan nga xalaat ci tel sujet est-ce que tu que bu ñu ci travail ça va intéresser le public est-ce que aussi en termes d'impact lan la war a mën a changer loolu lépp dafa yoo xam ne journaliste bi daf daf ci war a focaliser wu balaa muy jël un sujet pour faire une enquête au-delà de cela c'est vrai que risque la parce quand on dit journaliste d'investigation ça suffit hein, parce que dafa doon la crème du journalisme yow tu veux dénicher des choses yoo xam ne elles sont cachées te comme on le dit état boo gis dans le monde day nëbb des choses surtout je dis état parce que ñoom ñoo ñu gouverner mhm. état décision yi ñuy jël ñun impacte ñu ñun suñu vie nga travail si sujet yooyu c'est des sujets d'intérêt public te yoo xam ne bu amee impact tey mooy ëpp impact mu ngi mel ni nga travail sur un boo xam ne benn candidat à la présidence bénéficier de pots de vin voilà comme on dit en France fillon ay costume yi ñu ko may si xaalisu état bi yooyu c'est des choses importantes même si ça implique une personne maintenant mën na bañ a forcément impliquer une personne mën na doon un phénomène qu'on constate n'importe quoi le crime des crimes l'homosexualité je dis n'importe quoi hein l'orpaillage clandestin yooyu c'est des sujets yoo xam ne c'est important mais aussi à chaque fois pour man mhm. day ñëwaat ci autorité maanaam yow boo defee journalisme d'investigation qui am vrai pouvoir de décision pour changer les choses que mu doon ci immigration clandestine wala trafic de drogue à chaque fois tu t'attends à ce que boo defee sa enquête si tu poses ça sur la table publique autorité bi jël ay décision pour mu mën a changer de fois nag si sa les arrange pa wala bu fekkee dafa impliqué nit bu nekk ci gouvernement bi bu fekkee c'est pas dans une démocratie nga am ay problèmes yow journaliste bi mais man dama jàpp ne si tu fais une chose tu dois le faire avec avec conviction. conviction. dafa doon un métier comme les autres ñun ñoo choisir nekk journaliste. boo ko doonee tu connais les risques. parfois bon quand vous travaillez parce que bo pour man et puis euh, par exemple bu fekkee da nga nekk journal d' dafa am war a am connexion wala sa relais entre yeneen presse yi ñu. non seulement nga publier mais yeneen presse yi euh, reprendre ça pour que euh, mu mën a am impact ci ci ci ci ci société bi est-ce que ça vous arrive pas par exemple tu d'avoir peur euh, que tel sujet non du ma si liggéey parce que parce que bon ça implique des gens yoo xamante ne ils sont puissants est-ce que ça vous ça vous arrive personnellement non ça ne m'arrive pas parce que je sais ce que je fais déjà te xam naa ne je suis journaliste c'est pas un métier sans risque et man ma décidé nekk journaliste et comme je le dis sànq man je pense si sama xalaat ce qui me protège à chaque fois mooy de bien recouper l'info de dire des choses qui sont vérifiées factuelles dans mes enquêtes de sorte que tey bu ñu demee tribunal au moins mes collègues tout le monde sait que sur le plan professionnel il n'y a rien à me reprocher les abus loolu ça viendra après mais au niveau personnel j'ai pas de crainte à choisir un sujet boo xam ne ça peut être dangereux et y travailler prendre le temps pour def ci sama